dans l'ordre normal des choses fallait même pas faire de pétition xamul tax pourquoi pas dans l'ordre normal des choses on peut pas admettre qu'un intellectuel un intellectuel di toog di seetaan ñu taal université waxoo université ba ñu taal waxoo ñu taal bibliothèque waxoo ñu tëj un un nga naan da ngay di wax lay wax Ousmane Sonko day xaar ko songu sànku ba ci ay chanson moom nga xam ne yëpp c'est des bambins. chanson bi nag métti na leen de. lañ dem ba ca stade ba nii keroog ca final coupe du Sénégal. Ah, déjà vous couvrez vous couvrez naa leen nag ngeen jéem a monté. ngeen ñuy wan yeneen image naan naan image yi fii xam de Anita Diop de Anita Diop ce qui fait la force de la page de Anita kenn du ko changer kenn du ko dindi kenn du ko dindi. Anita sax mooy kan ba jaxate sa xarit la dégg naa. non vous me permettez sax ma def hommage moom c'est une dame que je connais très bien parfaitement mariée mère de famille qui vit par tantôt au Sénégal tantôt à mi ngi fii jamono yi may waxaan ak yow mi ngi fii Sénégal gi moom Anita. oui que les gens croient que maintenant. kon war nga ma ko indil sama plateau bi. non elle n'a pas besoin wax mooy Anita ce qui fait sa force déjà c'est une dame très sociale très sociable. intellectuel parce que ñi di wax dàqu ñu koo jàng gën leen xam luy informatique est-ce que comprendre nekk ci dëgg taxaw ci dëgg bu joxee information doo ko jiddi jamais ba mu dalee joxe information bu leen mën ngeen ko weddi vaar mën ngeen ko vaar doo ko vaar jamais au plus grand wax nañ ñu bu nekk ci hôpital gisaguñu ba tey photo bi xaar leen rek du génnoon na bi ñu toog bi mu toogee ci oto bi di wàcc di waaj a daanu toog leen rek kenn xaar rek yow ak Anita souvent da ngeen di partager. c'est votre la là ay informations yu similaires. c'est une amie que j'aime beaucoup. fan ngeen di puiser seen am na nag ñu ne am na nag ñu ne yéen ay réseau ngeen yore yu nekk ci yenn ministères yi ak yu bëgg naa nga leeral. xanaa réseau téléphone man na sama téléphone laa yor te Anita ma xam xam ko bu baax nag laa la wax xanaa ordinateur am ak téléphone am mooy réseau c'est-à-dire que bon voilà Xalaat TV kan moo ko moom. xalaat TV ah xaw ma ko ñoom dañu leen di xalaat TV ko moom dañu leen seen xalaat TV ñu bàyyi suñu Anita d'accord mais Anita moo la wax benn affaire c'est-à-dire que les informations qu'elle donne c'est du béton. d'accord ANITA n'est pas dans l'information elle dans le renseignement. voilà donc loolu pour nit bokk ci parti Pastef dafa wax ni euh, moom ànd na ci li nga xamante ni moo di plan B euh, donc nag mu mel ni nag lu ñu mel euh, ci moom kese lañ ko déggum parce que déggul nañ fi ku mel ni El Malick mu ñoom seen plan A mooy Ousmane Sonko seen plan B mooy Sonko Ousmane donc lu ñu mel tey jii ban gis nga ñoom jàpp nga ni ak situation ni mu demee nii ak après problème dissolution bi euh, un plan B est-il possible oui ou non. Pastef n'existe plus pour avoir un plan A ou B primo Pastef appartient au passé politique du Sénégal maanaam ca démb maam ya la maanaam bu ñu nettali déqale la joor ak xare Paate Badiane yooyu noonu mën nañ ci boole bu Pastef. mais vu que am nañ ay militants déjà ñu nga xam ne am nañ seen ay carte ah bu la neex dem par feneen mais bu ñu amee seen candidat ko parrainage kay loolee lu mën a nekk la Pastef mënutul am plan A wala plan B wala plan C Pastef ma ca plan zéro xam nga compagnie moo xam déet c'est-à-dire mooy ma ngi ci démb démb yi min sama ñun xudama man booy lépp ci ñoom Alboury Ndiaye ak ñoom ñoom ñoom Lat Joor Ngoone Latyr Diop mën nga ci boole Pastef plus déggoo ñoom li ñu tontu xanaa Ousmane Sonko n'existe ñu tey jii Pastef ci xol yi. te lu nekk ci xol nag deesu ko mën a dindi. xam nga xam nga xam nga mu ne sa xol mu ne sa biir xëtër moo yem loolu seen problème la. mu ne si xol ak mu ne si xëtër mais kon bu ko conjugué au passé parti politique lañ dama damay déglu parti politique ñu ngi koy dund ba tey dama lay wax parti politique loolu. parti politique parti politique lu tudd ñoom bu ñu ko seen xol ñoo xam mais li ma la wax mën a wax mu clair mooy. Ousmane Sonko du bokk ci élection. mais ndax tey jii parce que su amee ndax tey jii Ousmane Sonko du bokk ci élection bu ñu utee seen plan B ndax loolu tey jii mënul nasaxal yéen seen seen seen seen seen i plan yéen waa benn bokk yaakaar. non ñun ñu ngi suñu plan ñun suñu plan lañ que a ngi la mën man bañ naa ko benn expert Pastef. très bien ay El Malick Ndiaye noonu nag moom sikkim lañu gëstu leen ci yóbbaale te dañ dem ci kanam dañ dem ba ci kanam Pastef j'ai dit un jour ma ne leen bu doon may ay euh, Birame Souleye jóob wala ay ñoom Bassirou Diomaye Faye j'allais faire très attention parce que lendemain de Pastef parce que Ousmane Sonko du du bokk mënul bokk parce que Ousmane Sonko ñaari kaalaam bi jiitu mooy il est frappé par l'article L29 du code pénal ceux qui sont en état de contumace il est frappé par l'article L30 du code pénal. ci loolu sax la ñu sukkandiku pour radier ko ci liste électorale yi. li ngay wax mais mais c'est automatique. radiation bi nag am na ci ànd parce que nee nañ xam nga wuyu ñu ne dès l'instant ñu ko contumace bi tëb xam nga tey ma Jamil Sané tey xam nga génn nañ ko mu ñëw wuyu c'est vrai ou c'est faux maanaam mu ñëw ñu indiwaat ko pour beneen affaire. ñu ko beneen mandat de très bien xool léegi nag nañ xool léegi nag ci li ko procureur bu yóbbu ko ndungu siin ndax am na ci affaire affaire corruption de la jeunesse ci. kon kooku yegguñ foofu maanaam déchéance yi indi contumace dal na Ousmane Sonko fi fini moo jëloon ndaw am daw min Dakar ilaa Ziguinchor daw xale bu jigéen bu ndaw ñu tuuma maanaam ñu atte ko ni li ñu atte Ousmane Sonko mooy que ni yow magam jëmm nga boo xam ni da nga doon dem ci bërëb ci bërëb yu bon yi nekk di yàqataan ay xale di leen nax parce que da leen ëpp xel wala da leen ëpp xalaat loolu mooy corruption de la jeunesse maanaam tey jii ma ñëw fii yow ci Sénégal set bàyyi nga jaf ma directeur boo xamante ma maay recruter nit ñi nga am benn xale bu jigéen boo xam ñëw na wala wut fii liggéey ma jàpp ko ne ko pour mu am fi liggéey nangam sangam même si élève majeur bu fekkee dafa am vingt ans laa la wax de ah ma ñëw di ko yàqataan di tuddee bis nekk pour jox ko place corruption de la jeunesse la tudd xam nga compagnie boo xam ne donc loolu booy loolu lañ article L29 boobu noonu ah xam nañu boobu noonu waaw même ñoom dañuy dem élection ci coalition Sonko 2024 xam nga dof xam nga fu mu ne nii waxatuñu waxu Pastef. xam nga dof yi ñoom li ñuy wax moo di coalition Sonko 2024 waaw non nañ def coalition Sonko 2024 nañ ko yóbbu conseil constitutionnel ñooñu ñooy wax ndax lii mën na nekk wala mënul nekk xam ndax compagnie moo xam déet naan bu ñu ko defee seen coalition ba pare yóbbu bu leen validé validé la leen nous nous sommes un parti politique ak ñoom campagne dem ku ku ku gañ a gañ a nga c'est ça mais c'est moom mooy xanaa xanaa ñoom dañ gëmuñu seen bopp ñu def Guy Marius 2024. war ñu def euh, Abass Fall 2024 pourquoi Sonko. ñooñu ñëpp mën nañ nekk plan B yi. gis nañ fan yii non ñooñu plan B. gis fan yii Guy Marius Guy Marius bi def ay visite de proximité si ce n'est pas Jamil Sané Guy Marius bi def ay visite de proximité. si ce n'est mu ngi dem di seeti ji. moom laa la euh, wax famille ñi nga xamante ni jàpp moom laa la wax et puis et puis il a il daw parce que c'est le plan B.

duñ duñ duñu plan dara bu dul woon Jamil Sané mi nekk si kaso bi Jamil Sané mooy nekk numéro 2 yàlla ma tiim xam na ko. mënu fay teg ay ay ay jomaay et autres. jomaay si toutefois génn après la ñuy comprendre seen avocat yi déposé waat nañu ab liberté. après la ñuy comprendre laa la wax que ni du affaire ay parti c'est un truc régionaliste la nekkoon. nga yaakaar ne Ousmane Sonko par force par force la def Guy Marius Sagna député fële Ziguinchor par force. il n'avait pas le choix par la force laa la wax la defoon ni ceux qui ceux doon financer les actes. mu def ko par la force. par la force pourquoi ne il n'avait pas le choix. dama lay wax gis nga en 2017 lañ créé FRAPP France Dégage Guy Marius est entré dans l'espace politique du Sénégal yaa ngi dégg baax li ma wax mu dajeeg Ousmane Sonko créé Pastef y avait rien qui liait Ousmane Sonko ak Guy Marius Sagna à part que Guy Marius Sagna nekkoon sympathisant Ousmane Sonko ci la mu doon def. dama bëgg déglu baax li may wax. maa ngi lay déglu. en 2019 xam nga 2018 2019 euh, nu mu tudd sax euh, le rebelle qui est en qui en France actuellement muy Kourouma Sané a reçu ki nga xamante ni moom mooy euh, Kayz Fof ils ont commencé à nouer benn affaire ci affaire u ay affaire u ay réseaux sociaux et gis nga ce qu'on a fii ñu doon ñu doon ñu indi fii ay nit biir dakaar ñu jógee Casamance ñëw biir dakaar ñan lañ ci jàpp le maire. nu mu tudd sax jaata comment ce que comprendre nga Jamil Sané. Bilal Diatta. Bilal Bilal Diatta est-ce que comprendre Jamil Sané est-ce que comprendre cest des gens qui a pris et dont ils sont accusés de de financement de terrorisme et nangam sangam des gens qu'on a pris ñu jugee Bignona ñu jugee dans le Blouf ñëw Dakar di taal ak di yàq taal université bi quand quand on se bat duñu mel duñu mel ne am cible. mais il ont ciblé ay cible doy waar par université ñuy taal bu ñu paree ñu maam di taal université ñu taal BR BRT bi ñu taal TR bi ñu taal nga yaakaar loolu c'était c'était c'était prévu c'était prémédité ñaari jours la Ousmane Sonko def Casamance combien de jours ci procès ak Adji Sarr il a mis des semaines là-bas yaa ngi baax ni ma wax ils ont peaufiné li ñuy peaufiné jour bi muy génn Casamance lañ jël benn lañ jël benn liste ma la wax baax ni ma la wax jël benn liste liste bi ah ñu ubbi ko ñu ubbi liste bi maanaam pour booy wala war ñëw Dakar ñu bind bind bind bind bind ils ont transporté des gens ñu jógee Dakar ñëw fii ñu jógee Ziguinchor ñëw fii Dakar lui il a pris euh, euh, nu mu tudd sax la route vers euh, Sédhiou et def caravanam yaa ngi baax ni ma wax maintenant ces gens qui étaient venus Dakar bon ba jàpp nañu ci ñu bëree bëri bëri bëri. ñoo xamante ni bañ jàppee alias euh, nu mu tudd sax euh, euh, ki bañ jàppee Baytu Laay ki était nu mu tudd sax genre voilà genre laay bërëg yooyu noonu quoi ci la ñu wax ni moom ci boppam moo wax ni. d'accord moom ci boppam moo wax ni moom bras droit Yaya Jammeh moo wax ni Pancras bi nga xam ne moo nekkoon sérieux Yaya Jammeh moment bi Ousmane Sonko nekkee foofu noonu dawal procès bi ñu jàpp ne procès da daw nekk foofu biir Casamance Pancras était chez Ousmane Sonko nga déglu. Euh, ku mel ni Cheikh Yérim Seck la ma Madiambal Diagne a clairement dit que ni Yaya Jammeh finançait les activités de Ousmane Sonko tey on en est arrivé à un moment où ñu naan plan A plan B on nous parle de Guy Marius Sagna ce qui veut dire que ni c'est Pastef n'était pas mais wax yàgg naa leen ko wax qu'est-ce qui justifie euh, euh, segg bi nekk ci peewu Pastef moo nekk ci drapeau MFDC qu'est-ce qui les justifie lan d'accord segg yi mooy le SMA yi même ma expliquer sénégalais ñu xam segg yi mooy le SMA yi qu'est-ce qui justifie le choix des couleurs le choix des couleurs de Pastef et le même choix des couleurs du MFDC qu'est-ce Guy Marius Sagna qui n'a jamais foutu pied à Ziguinchor qui n'a jamais été au contact des Ziguinchorois qui n'a jamais porté un combat des Ziguinchorois fàttalikul booy étudiants yi nekk fii am nañ combat bu mu jël Guy Marius Sagna faalewu leen sax combien de travailleurs Ousmane Sonko a mis dehors. qu'est-ce qu'il a justifié selon vous non amul bu amoon mu wax génne ko. d'accord maintenant nag léegi lan Ousmane Sonko jël ko def ko par force député. il l'a mis par force dans mu nekk député Ziguinchor. d'accord actuellement nii boo voilà yow yow lan la lan liggéey bi passé pour war a nekk le numéro 2. d'accord qu'est-ce que non bu dagg foofu. non non c'est-à-dire mais na mais waxtu bi jeex na mais bu dagg la Bassirou Diomaye Faye. deful biir Pastef. ñoom xam nañ ko peut-être. lan la ñoom ñi nga xamante ñoom lan la Birame Souleye Diop deful moo dama la wax lan la Birame Souleye na ba am malheureusement c'est pas malheureusement malheureusement c'est c'est pas eux nest pas kan mooy euh, désigné alors César Atoute Badiate a dit une fois César Atoute Badiate wax na benn yoon ne Ousmane Sonko est le leader qu'on attendait depuis Émile Badiate il l'a dit clairement il l'a dit clairement Sénégalais yi du ko dégg yow kañ nga mës a gis Ousmane Sonko mbir am Ziguinchor mu génn naqarlu ko des actes du MFDC MFDC pose mësul am on a tué des soldats sénégalais. xam nga li lay expliquer loo ma lay wax nii li ma lay wax nii. dama lay wax non dama lay expliquer non xam nga ñëw est ñu naan ndax Guy Marius Sagna moo remplacer Ousmane Sonko ou pas. ce qui veut dire que le projet nekkul woon un projet politique loolu laa lay wax Guy Marius Sagna a été le premier Sénégalais bu ñëw xalaatu ñenn ñi la nekkul li nga xamante ne moo am xam nga nag vous de la presse. oui a été le premier Sénégalais bu ñëw dugg biir assemblée nationale ñuy saccager assemblée nationale taxaw ci kaw table assemblée nationale pour pour maanaam pour pour pour mab li nga xamante mooy la représentation sénégalaise léegi li ngay wax maanaam léegi sénégalais yi seen bët lañ yor dama wax sénégalais yi seen bët lañ yor yor seen nopp le monde l'avenir nous dira d'accord d'accord li li ñëw nii si kanam point bi ñu daanalee nag point bi ñu daanalee ah, moo di euh, ñi ngi may ñi ngi may wax sax que ni BRT bi euh, sànq euh, dafa am quelques soucis def je pense que dafa dérapé heureusement sax ba amul ay nit ñu nga xamante ni blessé na ba amul mais BRT bi dafa dérapé maa koy gis ci ci image euh, rapidement bu dee am nga ci. am nga ci gis-gis loolu nga boole ko aussi ak li nga xamante nga xam seen candidature yéen benn. c'est très ah, maa ngi.